tey société euh, sénégalaise de télédiffusion Euh, moom moo oote woon ndogu presse lu tax mu woote ko ndax xam ngeen ne juróomi fan jàpp juróom-benn fan ci weeru mais incha allah li ñu duppee euh, réseau africain de télédiffuseur mu nekk kuréel goo xam ne euh, dafa ëmb juróom-ñett dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk mois ñoom ñoo lëkkale seen doole ak seen xam-xam ngir gën a mën a caytu nan ak naka la ñu war a gën a mën a càmbare li nga xamante ne moom mooy télédiffusion télédiffusion nag bu ñu ko tënkee mooy ay xarala yu bees yu yees yoo xamante ne ni. ginnaaw code de la presse bi nga xamante ni moom moo tënk lépp loo xamante ni dafay wàcc ci wàllu audiovisuel moom moo ne léegi euh, dañoo bëgg daal Sénégal ñu taqaarlee li nga xamante ni moom mooy édition maanaam programme nan lañ koy toggee ak ni nga xamante ni moom mooy diffusion maanaam xarala yi muy jaar loolu nag lu tax ñu teg ko permettre rek éditeurs yi ñu gën a mën a xarañ ci programme yi ak gën ci mën a am ay lu yees luñ ci proposé sénégalais mais aussi permettre euh, société bi nga xamante ni état du Sénégal moo ko créé depuis 2017 muy muy TDSSA permettre ko aussi euh, mu agrégé maanaam mu mu mu boole lépp luy xarala xalaat ak ay ngëneel yoo xamante ni vraiment euh, dinañu mën a seetaan télévision ak fépp foo foo mën ci nekk si Sénégal que nga dëkk Kounoune que nga dëkk. Euh, euh, Fongolembi wala nga dëkk Vélingara wala Koumpentoum foo nekk ci Sénégal da nga war a jot télévision bi ci anam ñu mu gën a leere waaye programme bu la neex maanaam amul lenn loo xamante ni di nga ko ci fay surtout boo fayulee tamit euh, di nga am lu ñu naan une la télévision loolu am solo la yeneen i ngëneel yi nga xamante ni tamit TNT indi na ko mooy ci wàllu éditeurs yi dañuy permettre ba bu la neexee yow tey éditeur nga nga ne ah man ne damaa bëgg natt sama bopp lu ñu naan e médiamétrie loolu ñun suñu plateforme mën na la ko jox ak leneen loo xamante ni mooy vidéo on demande ak it yeneen yi gëneel yoo xamante ni mi ngi ci TNT euh, sànq juñu ngeen ko il faut ñu gën a yaatal ndax sénégalais aussi gën a xam li ñu yor waaye tamit xam ne euh, ku am TNT euh, ku am décodeur. Euh, da nga bëgg Sénégal da nga bëgg sa da ngay jàppale itam si économie réew. défi yi benn défi premier défi bi mooy fexe tamit euh, ba euh, relation ak ñi nga xamante ne ñoom éditeurs yi relation bi mu nekk relation boo xamante ne nii éditeurs dañu xam ne ñoom aussi dañu war a fay li nga xamante ne moom mooy collect bi transport bi multiplexage bi ak diffusion bi ndax loolu service la maanaam mi ngi mel ni rek yow tey yow heure bu ma xëyee maa ngi nekk ci yow di liggéey weer wu deewee. am na as tuut loo ma war a compal bu ko defee aussi li may liggéey sama doole bi ma mën koo maanaam mu am ndàmpaay loolu nag aussi lu tax ñu koy xaar mooy dafay tax ba service yi ma fi tudd sànq service yooyu dafay gën a yemb pour ñu jox leen ko mais aussi surtout dafa am solo parce que bu ñu duppee lu mel ni ay médiamétrie loolu dafa baax ci dëkk bu ko defee dañuy xam yan programme la ñu war a yeesal ak yan la ñu war a tegg suñu tànk ak it nan la ñu gën a mën a toggee programme bi nga xamante ni peut-être que ñu bëri dañ koy suivre ak aussi en termes de mesure de statistique euh, ñi xamante ni aussi ñoom ñooy suivre bi programme ay góor lañu wala ay jigéen ay xale lañu ay mag lañu wala ay ndaw loolu tamit TNT maanaam xarala yu yees la yu bees yoo xamante ne ni bu ci sukkandikoo Sénégal dina développé bu baax même ci wàllu démocratie nu ñu koy gën a assoiré ndax loolu aussi vraiment am na solo te fi mu toll nii nag seetlu nañu ne euh, li nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee sànq mooy à l'échelle africaine maanaam juróom-ñetti dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk lu ñu naan UEMOA ñoom dafay baax. ñu gën a lëkkale seen doole ba programme yi nga xamante ni moom la ñu bëgg Afrique ñu koy seetaan xale yi di ko seetaan mag ñeeg ndaw ñi ñu jéem koo xool ñoom nan lañ koy defee maanaam ci benn bouquet naam sax encore une fois ñoom du ñoom ñooy édité mais nan la ñuy xalaatee parce que encore une fois écosystème la dañuy xalaat ak a màcc ak it aussi xel-xel li parce que secteur bi éditeurs yi ci la ñu bokk Euh, beneen défi bi mooy aussi nan la ñuy former parce que xam ngeen ne sànq juñ naa ko ci nasaraan euh, président de la République son excellence monsieur Macky Sall euh, dafa seetlu ne du Sénégalais yëpp ñoom ñoo mën a am gratuitement li nga xam ne moom mooy décodeurs yi mu ne léegi TDS 120 mille décodeurs yéen koy distribuer gratuitement bi ñu demee ba koy distribuer nag dañoo gis ne am na dëkk yu bëri yoo xam ne bëriwul ñoo xam ne mën nañ ko monter wala aussi bëriwul ñoo xam ne maanaam mën nañu réparer te xam nga fi mu toll nii nag li gën a soof mooy yow nga am matériel bu paanee rek nga sànni ko donc loolu aussi ñun euh, bi loolu amee dañoo jël suñu temps tàmbali lu ñu naan formation 1400 jeunes loolu tam nekk tontu boo xam ne aussi dañ koy tontu président ne ko yow de da bëgg euh, ñu former ndaw yi utal leen ay xëy TDS de mi ngi koy mi ngi former ndaw yi mi ngi mi ngi utal xëy loolu tam bu baax ñun tam dañuy contribuer à l' national euh, donc de développement de l' emploi des jeunes.